dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit Diomaye Faye Ousmane Sonko fois et courage au service de la patrie mooy turu téere bi nga xam ne kii di du sew bind na ko téere bi nag mu ci dellu si ci jaar-jaar taarix ak yëngu-yëngu yi nga xam ne ñii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye nekk tey ci bopp réew mi jot nañ ko amal ba jot ci réew mi téere boobu lee gaaral nañ ko fukki fan ak juróom benn ci weeru bi fële ca King Fahd Palace nañ ci ànd ak auteur bi la di Mamadou Sow mu ci ay leeral ñoom dañoo wax ci lu jëm ci patrie panafricanisme loolu la ñu wax loolu nag dafa ñuy jëriñ jëriñ Afrique bi yëpp gox bi yëpp alors ñoom li tax ma gëm seen mbir kii ñuy wax président Diomaye Faye ak suñu premier ministre Ousmane Sonko li tax ma gëm leen mooy seen parcours tax ma gëm dama gis ñu def ci seen bakken seen ruu lañ ci def amul lu ñu leen nootul noot bu ne def nañ leen ñu taxaw taxaw taxaw ba wone un très bon exemple aujourd'hui ne ñun dañu bëgg defar suñu réew ñun tamit man dama suqali ay ñu bëri ci ndaw yi ne leen jóg leen yëkkati leen seeni loxo yuuxu leen dal leen ci kaw lépp lu dul dëgg te ngeen yëkkati Diomaye Faye Ousmane Sonko ca kaw ndax ñii seen wax yamu ci wax rek dañu kaa dund dañ ko dund nooteel gu ne ñu def leen ko fi pour ñu dellu ginnaaw yaakaar bi ñu am ci ñoom ñëpp ko am ñun ku nekk yaa ngi sa njaboot te bëgg nga ëllëg si biir booy wane ginnaaw sa njaboot am ci lu ñu nekk bëgg nañu ñoom ñu dimbali nu ba nooteel gi ñu nekkoon ci loxo yi tubaab yeeg européen ak ñeneen ñu génn ci mën a exploiter suñu ay ressources defar suñu réew comme ni ñeneen tubaab yeeg ñeneen ñi di defare seeni réew ñoom wax jooju la ñu wax moo tax mu gën a am ci ñoom yaakaar yaakaar bi nag mooy dañ ko war a jëfe fi ñu toll nii exploitation bi de nos ressources moom la ñu war a jublu lu jëm ci géej gi jéeri ji suuf si lépp ngir mën a jëm kanam am nañ ci ñoom yaakaar ndax fi ñu jaar la dañoo opposé bañ bañ bañ bañ bañ bañ bañ ba seen ru bëggoon ci def ñu làkk yàlla ne yéen lay dénk ku ànd ak yàlla na nga ànd ak Jomaay Fay ak Ousmane Sonko di leen ñaanal yàlla suqali leen seeni yéene yàlla yëggale ko te bu ko yàlla yëggalee suñu réew la ñoom moomuñu ko de ñun ñëpp ko bokk am nañ ci yaakaar ndax ñoom li ñu taxawal nii ak li ñu xeex nii def nii beneen dëkku Afrique amu ko ñoom rek la parce que dañ ñoo indil liberté indépendance lañ ñu indil parce que nooteel la fi nekkoon ba ci Macky Sall dafa amoon nooteel ñu ñuy noot di ñu xëbal militaires yi di génn ñuy dóor ay bal ñuy dee kon nag yaakaar naa Afrique yëpp gis nañu ñaar ñii nga xamante ni mooy kii di Diomaye Faye kii di premier ministre Ousmane Sonko am nañ ci ñoom yaakaar dañoo xare ba teg seen tànk lii moo fi am yàlla ànd na ci altine gi la ñuy ndar képp fanweer ak ñaareelu édition bu festival international bu jaas bu ndar artistes yi bëri lool te ñu ràññee leen fépp ci àdduna bi ñoom daan nañu ku ci nekk yéeg ci bi xumbal ci xew-xew bu mag bi lee ca place Bayandar ex fi nga xam ne ni fa la ñu sànc bu festival bi lee artiste di Sophie Lucas moo daal di ubbi baal prestation yi. moom daanaka ñi topp ci moom du ñenn ñu dul ñii nga xam ni ñoo ngànk groupe bu Ali Ndiaye Rose ak les Rosettes muy festival de jazz bu nga xamee ne ni nit ki le moom xamle na ne musu ko ratee muy wax ne daal war nañu wëyal di ko amal. vernissage yi loolu dafay wane ne Sénégal réew mu mag la ci biir àddina bi te loolu dañ ci kontaan ñëpp. patrimoine Ndar la suñ seetaanee bu nga xamante ni festival bi eh, perte nañ ko dinañ perte lu nga xamante ni lu extraordinaire la pour les générations futures. waaye artiste bi lee di Sophie Lucas moom jàpp na ne daal lii lee gént la bu nga xam ne ni réalisé na ko. ça euh, euh, conseil bi nga xamante ne def naa ko tey jàpp naa ne gént la boo xamante ne gént bu daal di nekk la ndaxte man bu ma géejee fii yàgg na waaye li ma dund tey neex na ma lool tey jàpp naa ne daal at yi di ñëw dinaa dellu si waat. ñii nga xam ne nii ñooy melomaan yi nga xam ne nii bàyyeeku nañu fépp ci àdduna bi ñoom daan nañu rek savourer prestation yu artistes yu nga xam ne nii xumbal nañu ndar ci fan yi lee ki doon jokkoo ak yéen fii ci saint wi Yves Tendeng Sud FM. jóge ci loolu wax ci wàccaayu juróom-benneeli édition festival Ñummi Badiyaa bu Toubacouta bi nga xam ne jàpp nañ ko amal ñaar fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai bi ñu nekk foofu lekk Toubacouta ponk bi ngi jàpp nag moo di naka la tourisme bi mën a suqalee barab yooyu nga xam ne dañuy bàyyi xel lépp lu jëm ci wàllu écosystème bi ak mangrove bi jamono ji nga xam ne wàllum changement climatique yi mu ngi lëjal àdduna nañ ci ànd ak Ngor Sarr sous-préfet bu arrondissement bu Toubacouta jiite na benn ndaje bu comité local développement pour juróom-benneelu édition festival littoral transfrontalier diggante Gambie ak Sénégal te ñu di ko wax ñoomi Badia bi nga xamante ne dafa war a am diggante ñaar fukki fan ak ñeent ak jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai bi ñu nekk mën a antu muy ndaje bi nga xamante ne dafay gën a dëgëral itam diggante bi ci ñaari réew yi nga xamante ne moom mooy Sénégal ak Gambie bu ñu sukkandikoo ci Pape Seydou Dianko di maire bu Toubacouta. festival ñoomi Badia bu Toubacouta. rendez-vous la boo xam ne muy rendez-vous boo xam ne mu ñu ngi ci oo askan Toubacouta góor ak jigéen di ñaan ñëpp jàpp ci parce que culture aada ak cosaan moom la ñu am amuñ lu ko ëpp kon nañu téye suñu aada téye suñu cosaan valoriser ko ba mun ñoo jural jëriñ thème bi dañ jël changement climatique parce que gis nañ ren benn changement climatique dafa bëri tàngaay boo xam ne duñ ko dund service technique yi ak collectivité territoriale bi ak artistes yi ak askan ba fa nekkoon ñëpp itam kenn ku ne nga engagement pour ndaje boobu demee ci wàllu cosaan ak aada ak koom-koom diggante ñaari ñoom yi muy ñoom yi baax Bato di ko wax ñoom Bato ak ñoom i bu gambi mën a am li nga xamante ne moom mooy li ko tax a jóg liñ ci waxtaane nag mooy li demee ci wàllu changement climatique ak li nga xamante ne moom mooy mangrove yi nekk ci gox bi ni la amat Sékou lii moom mooy sous-préfet bu Toubacouta. recommandation yi mooy que service technique yi jël toutes les dispositions pour que ñooñu di ñëw wax dëggal benn gàllankoor du am ñu fexe ba ndox mi am ñu fexe ba courant am sécurité bi également nekk au parce que nag euh, jamono ja ko laaj nu ñuy fexe ba wax dëggal gàncax gi nga xamante ne am na ay jafe-jafe sensibiliser la communauté ñu mën cee mën a jël jëf ay jéego. dina am itam benn panel bu demee ci wàllu thème bi waaye it ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi yëngu ci wàllu transformation ji di demee ci wàllu produit agricole ak produit itam dinañ fa def benn exposition pour ñu mën a jaay li nga xamante ni moom mooy seeni i gox Ngor Sarr Fatick Sud FM yéexale ko ak Côte d'Ivoire di xam ne li fa mu nekk ni moom mooy sële bi yoon yu ñëpp ñu yëngu ci wàllu mbind ci Afrique ak ci àdduna ba ngal kàpp ñeel fukkeel bi yoon ak ñeent ñu amal édition SILA di salon international du livre d'Abidjan bi nga xam ne jamono jile moo am ca réew ma ponk bi ñu jàpp nag mooy le livre un pari gagnant niki noonu suñu correspondant Justin Assalé demoon na nemmeeku yëngu-yëngu ya waaye it waxaale ci li nga xam ne moo jàpp jëm ci FEMUYA bi nga xam ne ñu ngi koy amal foofule di festival urbain d'Anoumabo di it beneen yëngu-yëngu ci wàllu cosaan ak aada boo xam ne ñu ngi koy amal foofulee ca Côte d'Ivoire fi la ngi seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Diomaye Faye, Ousmane Sonko, foi et courage au service de la patrie, c'est le titre de l'essai produit par Mamadou Sow. Il est revenu sur le parcours et l'itinéraire de ces deux leaders politiques actuellement à la tête du pays. Voici l'auteur qui a procédé ce jeudi mai à la cérémonie de présentation et de dédicace de son ouvrage. Il s'en explique. Notre président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et notre premier ministre font en effet partie de cette euh, catégorie devenue rare de dirigeants africains ayant un sens élevé des valeurs et des responsabilités et dont l'exemple mérite d'être promu. Il y a effectivement lieu de brandir ces deux hommes en exemple et de magnifier leurs engagements pour la sauvegarde de l'avenir de nos compatriotes. Et l'objectif visé à travers les différents chapitres de cet ouvrage est ainsi le premier chapitre de l'ouvrage intitulé Des leaders courageux vise à ressortir le courage dont ont fait preuve et des leaders dans leur combat. Personnellement, particulièrement, euh, notre soutien aux nouveaux dirigeants de notre pays, en l'occurrence le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, se justifie par l'espoir qu'ils euh, au sein de leurs compatriotes. Cet espoir porte sur euh, la prise en charge de préoccupations majeures relatives à différents domaines et secteurs d'activité sociale et économique de notre cher pays. On peut notamment citer l'exploitation de l'agriculture, l'exploitation de la pêche, l'industrialisation de l'économie du pays, l'exploitation saine des ressources naturelles du pays, le respect des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression. Sur euh, toutes ces préoccupations, nous sommes

les détails avec Yves Tendeng. C'est ce lundi que se ferment les rideaux sur la 32e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Plusieurs artistes de renom se sont succédés à tour de rôle sur la grande scène des concerts de cet événement culturel. À la place Bayandar, ex-place Faidherbe, où est érigée la scène in de ce festival de jazz, c'est l'artiste Sophie Lucas qui a ouvert le bal des prestations. Elle est suivie par le groupe du Sénégalais Alindiaï Rose et les Rosettes. Ce festival de jazz de Saint-Louis, cet amoureux de cette musique ne le rate jamais. Il parle ici d'événements à pérenniser. Euh, que nous ont légué nos ancêtres, nos devanciers, doivent être pérennisés, doivent être accompagnés et soutenus. C'est pour cela qu'on essaie tout le temps de perpétuer cette flamme culturelle. c'est tout le monde qui se réunit ici et vraiment c'est une fierté pour Saint-Louis. Mais pour l'artiste Sophie Lucas, c'est un rêve qui se réalise. Ça, c'est vraiment un rêve euh, qui se réalise. Euh, j'ai visité Saint-Louis pour la première fois il y a 8 ans et rêvé de venir partager euh, ma musique. Euh, Il y a la connexion de la Cora, c'est un festival euh, magnifique, splendide. Les mélomanes venus de toutes les contrées du monde ont savouré les prestations diverses et variées des artistes. Saint-Louis Yves Tendeng, Sud la sixième édition du festival Ñumi Badia de dans le département de Foundiougne se tiendra du 24 au 26 mai prochain pour thème quel des écosystèmes de mangroves dans un contexte de changement climatique. Ngor Sarr nous plus. Le sous de l'arrondissement de Toubacouta a présidé une réunion du pour une bonne organisation de la Sénégal-Gambie dénommé Nyomi Badia qui se tiendra du 22 au 26 mai prochain. Un événement qui raffermit les liens fraternels entre les festival ñoom mi Badia bu la boo xam ne ak suñu population. moo tax événement bi dañ koy waajal. parce que bu ñu waxee tey ñoom intégration diggante Bali ak Sénégal muy rendez boo xam ne tamit ñu ngi ci askan Toubacouta bu ak jigéen di ñaan jàpp parce que culture aada ak cosaan moom la ñu am amuñu lu ko kon ñu téye suñu aada téye cosaan valoriser ko ba ñu jural jëriñ. thème bi dañ jël changement climatique parce que gis nañu ren benn xam ne ko dund. Les services techniques, la collectivité territoriale, les artistes et les populations ont pris des engagements pour la réussite de ce rendez-vous culturel et économique entre deux Nyomi, le Nyomi Bato, communément appelé le Nyom Bato et le Nyomi de la Gambie, avec comme pour thème quel tourisme pour le développement des écosystèmes de mangroves dans un contexte de changement climatique. Amat Sekouli, sous-préfet de Toubacouta. Des engagements ont été pris pour que tout un chacun s'évertue à faire de son mieux ce que l'on attend de lui afin que véritablement l'événement soit une réussite. C'est un événement d'une dimension transfrontalière. L'administration s'est engagée, la collectivité territoriale s'est engagée, les populations et les artistes, donc tout un chacun s'est engagé pour que nous puissions réussir le pari de l'organisation. exposés au changement climatique. Les dérèglements font que nous vivons certaines situations, d'ailleurs, qui poussent nos enfants à partir. Il est question de vendre la destination, de faire du marketing territorial. Il est prévu un panel sur le thème et une exposition par les femmes transformatrices de produits halieutiques et agricoles pour vendre la destination. Ngor Sar Fatick, Sud FM. Abidjan vit au rythme de la culture et de la littérature avec la 14e édition du SILA, Salon international de littérature d'Abidjan, sous le thème Le livre, un pari gagnant. Voici la correspondance depuis Abidjan de Justin Assalé. La 14e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, s'est ouverte mercredi au parc des expositions d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué, sur le littoral. Elle porte sur le thème Le livre Un toujours gagnant. La cérémonie d'ouverture en présence de nombreuses personnalités, des acteurs de la chaîne du livre, d'auteurs surtout, du journaliste écrivain franco-ivoirien Serge l'auteur à l'honneur d'une délégation venue du Kenya, invité Parrain de ce 14e Salon international du livre d'Abidjan, le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Ali Koulibaly, a défini les vertus de la lecture. propose aux jeunes un irremplaçable outil de connaissance et d'épanouissement. Elle leur fait découvrir mille récits, mille personnages, mille héros auxquels s'identifier et elle leur ouvre toutes grandes les portes et les fenêtres du monde. Elle nourrit leur intelligence, développe leur mémoire, enrichit leur vocabulaire, stimule, stimule leur pensée La lecture offre le savoir, le le savoir-être. Elle véhicule la vérité, la sagesse et la beauté. Conférences, panels, expositions, concours et cafés littéraires, entre autres, meubles ce 14e SILA, le Salon international du livre d'Abidjan qui referme ses portes demain samedi 18 mai 2024 au parc des expositions d'Abidjan, si dans la commune de Port-Boué. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. C'est la fin de de la culture. Merci de l'avoir suivi.